magistrature euh, bon voilà seen euh, <laughs> tout yooyu rek donc euh, donc biñu saisir mom liñu saisir mm-hmm. donc en tant que njiitu kuréel googu mom mm-hmm. lañu saisir n'ako ko ñi fi tek ne tuddé len ay sage defuñu liñuy xaar ci ñom c'est tout à fait normal tay ji bo len defone sen émission di ma wax lo xam jàpp naa ne da ngeen di da ngeen da ngeen da ngeen di yàq sama der xëy na ci lenn am naa sañ sañu bind njiitu Diaspora News mais bind ko ça veut pas dire que ne day ñëw woo euh, soxna Anna woo soxna Aïssatou na leen bàyyi leen li ngeen di def. Mhm. mais dinañ ko informer après yéen yéen xam noo leen koy lijjantee seen biir mais l' essentiel mooy man dinaa topp sama yoon dinaa dinaa leen wax yéen saisir leen na leen mhm. li ngeen di wax teguwul yoon soo leen ci continuer ma ki kii mom la moom mo len fi tek nako bind tamit wax ko pour information donc loolu lañ ci djublu won mais bagn koy bind jubluñu ci won pour mu recevoir nous mais c'était pour informa en guise d'information. Euh, vous pensez que mom il n'était pas informé. non xam nga nit ki dana xam mais téréwul mhm. parce que ñu koy djébané mhm. ndax tay jii mënon na né partenaire au développement ñu dem séti ils sont au courant. Mhm. parce que dara rëccu len fi dañuy envoyer des informations chaque fois am na rapport yo xamné ñu ngi koy def ci suñu état yi tey jii ñi xamné ñom ñoy def rap euh, ay rapport sur euh, sur l'état de la démocratie au mm-hmm. Sénégal tooguñu xaar ñu àndi leen ay rapport wala ay ay faits dañuy mm-hmm. tok analyser combien ni ngeen koy défé mm-hmm. donc dafay jaadu won soy demee nit diko djébané fenn nga mom ci walu boppam nga saisir ko ne ko li moo tax lii laa lay reproché et c'est ce qui s'est passé avec lui donc ñu yónnee ko courrier yónnee ko lii lañ lay reproché en fait pas yow mais lii la ñuy reproché au conseil constitutionnel en guise d'information na ko nag euh, bëgg nañ ci am lu leer ndax tey jii bu dara sénégalais yi nga xam ne ñoo bootu suñu ginnaaw Ta am yaakaar ci élection yi ndax bëgg nañ changement am bëgg nañu tay, bu ñu def bu ñu demee ba yegg ci ñoom it ñu bañ leen wax na leen nous voulons voter parce que c'est un nekkul ci ci fichier électoral Ce que nous avons c'est plus d'un million de sénégalais qui ont l'opposition opposition bi donc on suppose que c'est un million de voix ou voire plus qui ont été dans l'opposition mm-hmm. donc si nous avons un fichier électoral au même moment le candidat du pouvoir a 4 millions de parrains mais c'est un jeu de mots et on est dans la communication mm-hmm. Le bu ñu gagné l'élection élection premier tour est-ce du ko weddi donc yooyu moo ci nekk ndax qui taxaw li ñuy kaas ni kenn waxu ci moom mu taxaw ni yéen a fi joxe ay parrainage yu baaxul yéen a dugal un million de personnes ci fichier électoral bi te newuñu ci donc ñun yu ñu yore baax na donte ba mu ba mu waree dem ci ci parrainage yi la préférée dem ak le parrainage des élus. Mhm. non loolu moo nekkoon son choix mais ñun loolu dafay nekk loo xam dañ koy. mais donc looloo taxoon ñu bind mais mhm. c'était pas dans le but. Mhm. ne ko nañu randal élection parce que boobu comme ni wax on est dans le processus. conseil constitutionnel jëlu woon décision donc moom en tant que euh, président de la de de de, de la haute magistrature sous sous su ci waxoon période boobu wala mu recevoir ñu amaana doonoon nañ nous trouver solution toujours ci biir période pour nous def li def il aurait fallu 24 heures ou 48 heures au conseil mu revoir tout le processus électoral nous mën a jàll ci mais yéen lan ngeen doon xaar ci mom exactement. président de la République mom wax ni xam nga alors y' a deux choses ci attente bi. Mhm. soit nga ne attente bi le 15 bi ngeen ko ba le vingt. C'est ce que nous soyons rétablis dans nos droits mais après le 20 nous avons une attente. mais rétablir dans vos droits comme ni ngeen koy est-ce que mm. président ou le conseil constitutionnel non mais xam nga wax conseil constitutionnel. Mm-hmm. nous, conseil constitutionnel. attention que ngi def que nous ne nous mm-hmm. chef de l'État les partenaires parce que alibi bi ñu doon bëgg jël ne ne looloo tax tey jii euh, ñu génnee ñu fichier électoral bi mais ñi xam ne ñoom ñoo dugal ci seen àll ci fichier électoral boobu ñoom lañ dem seeti ne la attention dañu bëgg wax ne fichier bi baaxul alors que dernier audit bi ñu ci def dañ ne woon que le fichier représentait euh, benn niveau d'erreur boo xam ne zéro virgule quatre-vingt-dix-huit pour cent la mm je pense que bien 14 15 erreurs lañ à amoon donc ça veut dire que le fichier en tant que tel il est bon. Mhm. mais si le fichier est bon mais il outil a ngay jël pour pour mon pour mon contrôle n'est pas adapté n'est pas conforme par rapport à la loi ba dire rejeter des gens c'est tout à fait normal Ce c'est pas parce que vous êtes les sages. Mhm. et que vous avez euh, un droit de droit d'erreur ça fait des années que nous préparons par rapport à cela doxuñu loolu lañ doon reproché mhm. tey dit euh, euh, euh, au SAGE mhm. au conseil constitutionnel et, éventuellement à sa commission et que tu côté boobu d'une day na borom xel mhm. biñ ci tolloo def le 6 déjà la Sénat mais nga xam les lépp lu jëm ci wàllu élection wala consultation ci Sénégal ñoom lañ ko may dañu génn def un aveu de taille dañu génne benn communiqué mais ah attention bu leen suñu site internet parce que fichier électoral n'est fa à jour Mais laaj ci ban ban monde lañu nek yow di nga organe de de surveillance té fichier à jour xam lu muy mhm. mu ngi melni nga tukki dem euh, police euh, aux frontières ne la ñun yoruñu le dernier fichier à jour des passagers ou le dernier fichier à jour des passeports sénégalais mais ça veut dire que kon ku passeport bu permis sax mën na d'accord euh, c'est une aberration. <laughs> Diop, euh, on va revenir un tout petit peu à euh, la missive